Muntaxa moom lépp ñu koy defal ci àdduna mooy sama baay di sama kilifa di sama wéeruwaay di sama yaakaar te damaa war a bokk ci ñi nga xam ne tey jii taalibi Sëñ Tuubaa yi ñuy wàññi ci ñu ko war a dimbale ci liggéey bi man ci laa war a jiitu daal na ma bi may laaj kaw la xit dama ko laajoon ngir defar ndax lii su ma ci jotee ginnaaw yàlla ak ñaanam ak yéeneem ak yaakaaram akum xelam moo taxoon ma jot ci daal na ma nag kon nag comme waaw tàmbale ko ba ci chambre de commerce ba tey kon nag moo tax Mbàkke li ma ko waxee woon rek ba mu ñëwee na ma jàppale ma ma ne ko woon man aw ma loo ëpp suñ muntaxaa te it képp koo xam ne jàpp naa la ba nga jàpp ci liggéey bi ci liggéey bi suñ muntaxaa bi rek ci la jëmewaat moo tax sa kër a nga ma sant ba nga ko ci waxee it kenn ku ko ci man amut lépp lu ma ko ci wax rek bu soobee yàlla muy guddi muy bëccëg. daara ji moo ci jiitu liggéey moo jiitu. waaw daara ji liggéey ji jiitu kon. daara ji nga xam ne moom laa njëkk a def. moom daara jàpp yëpp doo ko ci dajale. liggéey ko liggéey boo xam ne itam. ko laaj. alhamdulilah lépp moom moo ci jiitu. alhamdulilah. ko ba noppi. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. loolu yitti jéeg mm-hmm. euh, sàmm gi mm-hmm. euh, loolu lépp am na sama diggante ak alhamdulilah Mbacke ci yëg lu ma ci mën bu mm-hmm. ah, dee ñaan bi ñaan alhamdulilah yàlla na ko ceeg tawfeex dañ tubaab mu ne leen bu dee wax bu dee jëf man du sama mbir waaye nag teewul moom lépp lu ma lu ma ci moom lu ma xam ne war na caa taxaw war na ci waaw li ci am solo nag rek. mooy yow li la ci jotale. jikko bi nga amoon rek. jaar si jaar sa jaar jaar jaar sa sa ba àggsi. jikko boobu rek wéyal ko. moom lépp ngi ci biir. Mm-hmm. bi rek jàmm solo. waaw mm-hmm. ah, yow sa xelum bopp. Mm-hmm. sa diisoo moo mënut a ñàkk. waaye nag nag sa sa xelum jikko bu baax. waaw ñu ngi li nga doon doxee baax si rek. bu ci soppi dara. jikko bi nga doon jikko bi nga am noonu xel mi nga am noonu. moom rek jàmm solo. waaw moo la ko may te moo ko yor. li des nag yàlla yàlla mooy def. loolu lépp kenn defaloo ko yàlla la ko doon. waaw ah. ah, yàlla def lépp. waaw loolu yi nga xam ko. delloo sama bopp lépp wax lu lépp am ci mën a doon. waaw delloo sama sa kéem kàttan. incha dib ci lu dib taal jumaa ja tamit jumaa ja sëñ Isaaxa ak sëñ Moussa woon nañu ba boole ma ak Abdou Ñaan Abdou Ñaan ni ñu ciy waxtaan na nga ko bëgg di penc mi penc mi waaw yow def nga la la li ci des ñun ñu ci yërëm sax waaw taw man dugaluma ci suñu suñu jumaa la ñun ñëpp ñun ñëpp fa lañ fa lañ fa lañ fa lañ jaar fa lañ ñu tudde sax moom nag noo ci bëggoon a def incha allah gis na gis na jiblu mo ci woon dara mu nekk symbole waaw symbole yoon murid incha allah ci ci ci di buntu. Ah. ci buntu Saloum. Ah. ci biir Saloum. loolu laa ci jublu dama ci bëggoon def naa ko si. alhamdulilah kon loolu jëm si ci yow rek bu soobee yàlla moom. Ah. lu muy def rek lay doon eh. lu mu amul ci lu mu amul ci moom maa ko waxul. alhamdulilah xam naa loolu. alhamdulilah te gi moom alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. te li ma la def si man sama jëf jëf dama ci gënal muy jëf. Mm. jëm ci yàlla. Mm. jëm ci liggéeyal yàlla. Mm. muy dara jee kenn jiitu ko ci. alhamdulilah alhamdulilah. ndax doo fi suñu waajur jógee ba léegi. du man ak njaboot gi yëpp. Mm. ak sama waajur ak ñëpp mu ngi leen topp. Mm, mm, loolu bu baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah sëñ bu baax. anta Anta rahiim laazim arju منك يا الله